waaw ba tey gars yi Modou Lo yi nañu àndal nii ba tey bii nii instant bii nag gars yi dañ leen téye ñu ngi nii ànd ak waa Modou Lo instant bii gendarme moo ñëw pour bokk ci convoi bi ànd ak Modou Lo ko. dama jël ko dama jël. waaw ba tey gars instant bi lu tax Modou Lo mënagul àgg sécurité nañuy xalaat parce que waa Pikine bëri nañ fee lool trop sax. instant nag waa parcelle ñu ngi fii nii mënaguñoo àgg parce que sécurité bi wóorul c'est pourquoi gars yi di xaar pour xam exactement lan lañ fa mën a am. voilà Modou Lo moo nekk nii si biir oto bi comme niñ ko gisee nii gars yi si ginnaawam. eh signor ubbi nga son ubbi nga son bi waaw Modou moo nekk nii gaan ànd ak gaawam yi ànd ak convam comme ko gisee nii waaw comme ñoo ko waaw face à face boo xamante ne Modou Lo départ na depuis vingt et une problème en est que sécurité amul Modou Lo booyam yi day jéem a couvrir pour que bon dara bañ faa am jàmm gars yi ko jàkkaarloo si jàmm ñibbiwaat si jàmm looloo tax Modou Lo jëyee yi ba tey moo nekk noonu ñoo ko gisandoo. ñu